bés du ñàkk waaye tamit euh, nekk it kilifa diine ci dëkk bi waaye nekk it euh, banquier un technocrate xam naa nag loolu moom ñu bëree bëri am nañu ko xaw a umpale surtout gone yi dana ci dellu soit nag sëñ bi si Malick maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay ay Aidara mhm. di kontaan si ñëw bi ngeen ñëw fii ak jafe-jafe yi ngeen jànkoontoon ba am mhm. am entretien bi ñu lay sant di la gërëm jërëjëf si dafa am nag njukkal lu nga xam ni waroon naa ko Sen TV mhm. bu jëkk bi def na nañu émission si man def nañu émission si daara ji def nañu émission si colonie de vacances bi nga xam ne bii am naa ko Mansour moo ñëw déplacé ñëw Mboro c'est-à-dire que à chaque fois waxtu mu leen soxlaa rek daanu ñëw te ki nga xam ni moo ëpp lu mu contribuer si inondation mooy Bougane trente million chèque 30 millions la ñu joxoon pour di ñu dimbali loolu yëpp a tax ma ni am naa njukkal bu mu leen war delloo di leen sant leen jë gërëm lu nu mën ren yàlla nag ñu mën deewoon lu ko ëpp. waaw ah, te yàlla bu ñu jéem lu euh, euh, ñu tële. amiin allahu lisam amiin nag ñu bëree bëri ñu ngi lay ci wàllum politique waaye ñëpp itam xam nañ ne kilifa diine gi ak kër gi nga bokk waaye bëgg nañ xam tamit daal euh, Serigne Mansour Sy Djamil le technocrate le banquier. Hmm. am nañu ko umpale de. léegi avant d'être banquier je dois dire que Serigne Mansour Sy Djamil l'interprète de conférence. c'est à travers interprétation de conférence boobu si la yëpp jógee dama nekk si benn à Londres di fréquenter benn café pendant un an di fa gis benn nit ku ñuul du ko nuyu du ma nuyu benn bés ma ñëw di fay wax français mu tëb ni ma vous êtes ni ko ma fan si France sa fan si Afrique ma ne ko Sénégal mu ni ma yow jolof man nga ma ne ko man de Sénégalais laa mu ma baaxoo baaxuma ñu ngi daje fii pendant un an tuddante wu ni looy def damay def si école d'interprète munuma maa nga sa école d'interprétation boobu waaye nag man jël nañ ma Arabie Saoudite su ma paree damay dem su la intéressé soo paree sa ay études man mën naa toppatoo ba nga dem foofu. gis nga kooku ñu naan ko Oumar Sarr moo dem amoon na postam moo ñëw proposé ma président ni am naa sama benn compatriote bu nekk Paris léegi lay pare mais moom ñetti langue la am kooku vraiment suñu ko mënoon indi ngeen indi ko kooku yàlla tax. yàllaat kooku Umar Sarr boobu ak daje bi nu daje si café si restaurant moo tax ma dem foofu euh, Haramayni Sharifayni mu négocier ba nu ñëw ñu interviewé ma si benn poste bu nga xam ne bii y avait 3000 personnes mais man la ñu jël donc xoolal yàlla ni fi muy jaarale mbiram. sam papa ma bëgg dem addis mu moo doon dem dénk naa la yonent bi. yonent bi nee na yàlla diggante Makka ak Medina yëpp sama leer la falal kon nag demal nag góor si leeru yonent bi ma nekk fa pendant vingt sept an ak i boobu ma amoon euh, maîtrise boobu ma amoon ñetti langue yëpp Ousmane Seck yàlla dogal ñu recruter ko en tant que vice-président en tant que euh, membre de la direction de la banque président bi dénk ko les finances et finance anglais rek lay liggéey mbaxte Bangladesh ak waa Pakistan yi ñoo fa nekk administration arabe rek saoudiens yi égyptiens yi ak syriens yi ñoo fa nekk Ousmane mënul làkk anglais mënul làkk arabe président banque ni ko am nga chance parce que am nga fi compatriote qui est très bien ki est le seul trilingue de la banque moom rek moo maîtrise ñetti langue yi dam koy wax mu ñu détaché ko mu liggéey ak yow man nekk ak ñu denk dénk administration et finance pendant sept ans mu jógee fa ñu dénk opération au projet pendant dix-sept ans pendant 14 ans donc nekk naa ak Ousmane Seck pendant 21 ans ba ma pare man maa fippu ni que bàyyi ma dem si département bu nga xam ne bi foofu laay defee sama preuve parce que toog fii yomb na si la ma bàyyee ma dem le département de la coopération technique nekk foofu pendant cinq ans Euh, je m'occupais des consultants di occuper aussi échange d'experts experts bu baax Malaisie ma yóbbu ko Burkina Faso donc opération et projet ñi noonu kon si xolu banque bi projet yi ñëw yëpp si ñun lay jaar man ak Ousmane si man lay jëkk ñëw ma transmettre que Ousmane projet yëpp aujourd'hui lu tax ma indi loolu ay Aïdara c'est que aujourd'hui banque islamique boobu ngay gis mooy le premier partenaire du Sénégal 57 pour cent du PSE loolu moo ñoom ñoo koy financer. mes premiers pas à la banque ont été très très difficiles ont été facilités par ma rencontre avec Sri Mansour C'est le président de la banque lui-même qui m'a dit Nous allons vous faciliter la tâche. Nous avons ici un Sénégalais euh, de très grande qualité qui maîtrise trois langues et qui s'appelle Mansour Mansour m'avait déjà rendu compte, m'a rendu visite à mon hôtel, euh, mais nous n'avions pas parlé de mon service, etc. Il est venu me faire ce que je pourrais appeler une visite euh, parentale, une visite euh, euh entre amis euh, et euh, entre compatriotes. Mm, il m'a dit, il s'appelle Mansour Si. Et j'étais un peu surpris, je dis, mais est-ce que... Il me dit, eh, Mansour est une personnalité, je ne je ne sais pas comment est-ce que je peux l'utiliser en tant que traducteur, etc. Je m'a dit, vous verrez. Alors, on s'en est arrivé dans mon bureau. Alors, donc, j'allais en réunion avec mon soeur à mes côtés. Ce qui se disait, il me les murmurait à l'oreille. Et quand je devais intervenir, j'intervenais en français, il traduisait. Mais il n'a pas fait ça de façon mécanique, il a fait ça de façon intelligente, en analysant toutes mes réactions. Et euh, au bout d'un certain temps, il m'a dit, euh, ce débat, vous pouvez y participer directement, parce que vous dominez le sujet. Et la langue qui est utilisée, qui est l'anglais, vous en avez les bases. De temps en temps, essayez de répondre, essayez de poser des questions en anglais. Je lui dis que je ne vais pas me ridiculiser, mais non, non, non, non, non. Allez, euh, je, vais, je, je vous l'assure. Alors j'ai commencé à faire ça tous les jours, jusqu'au jour où il a décidé de ne plus m'accompagner. Il m'a dit, je ne viendrai plus vous voir. Euh, j'ai eu un haut le corps euh, de frayeur et de colère en même temps. Il m'a dit non, parce que tant que je serai avec vous, vous n'allez pas euh, faire l'effort nécessaire et je sais que vous avez toutes les bases pour ça. Ce fut un jeu gagnant-gagnant, puisque Mansour me formait en anglais, mais se formait en la matière économique et financière. il n'était pas de cette formation. Mais comme il recevait tous les rapports, finalement, il était aussi fort en matière économique et financière que les experts en ces matières. Alors, euh, et euh, il est tout naturellement devenu mon directeur de cabinet. Et nous sommes restés comme ça pendant ans. Et au de ce, de euh, quel est le fait qui vous a le plus marqué chez lui Quelle action il a posée qui vous a le plus marqué Alors, évidemment, il y en a, il y en a plusieurs. Deux faits marquants. C'est pour son produit pendant que nous étions en mission. Parce que quand j'allais en mission, on était ensemble. On est allé en mission à... Euh, euh à Singapour. Parce qu'il y a une communauté musulmane à Singapour. Et à Singapour, la communauté musulmane était divisée en deux. Il y avait les musulmans d'origine malaise d'un côté et les musulmans d'origine chinoise de l'autre. Et ces deux communautés étaient en guerre fratricide. il ne se, elles ne se ces communautés. C'est une scission totale. Mais c'était des communautés musulmanes qui avaient des réalisations énormes. Lorsque nous sommes arrivés à Singapour, c'est la communauté musulmane d'origine malaise qui nous a reçus. Parce que c'est là que connaissait la banque. Et Mansour a détecté qu'il existait une autre communauté qui était qui, qui, que, que, nous euh, m'a dit, nous ne pouvons pas laisser passer cette situation. Avant de partir, il faut que tu réconcilies ces deux communautés. Il a fait les démarches. Et pour la première fois depuis des dizaines d'années, nous avons organisé une réunion commune entre les deux communautés. donc jaar ba jaar joom laa def pendant li may ànd ak Ousmane dem naa moom fépp si àdduna organisation internationale que ça soit la Banque mondiale la Banque africaine de développement la Banque asiatique de développement la Banque interaméricaine de développement le Fonds monétaire fépp ñoo daan ànduma moom waaw gis nga background boobu moo tax bi mu ñëwee à l'Assemblée nationale aw mu benn problème parce que loi de finance su ñëwee ministre bu nekk indi projet man am naa background am naa xalifiyaat bu nga xam ne am naa lu lay taayoo sama dund lu ma xam ne lii projet par projet ministère par ministère. Mhm. mën naa xam ndax li ñuy présenté jaadu na wala jaadu. jaar jaar boobu nag moom laa am chance boobu laa am si benn waay bu ma taseeg si benn café muy naan café may naan café waaye mbaaxam fexe ba ma dem si Haramayni Chérifayni. d'accord Serigne Mansour Sy Djamil jékki-jékki dugg ci wàllum politique nag. def bés du ñàkk. Mhm. lu tax politique bi. mënoo woon yem ci financier rek wala. non non xam nga euh, dama nekk 40 ans à bi ma nekkee étudiant maa doon président de l'association des étudiants sénégalais en France organisation bu nga am du Mokhtar boobu ak Cheikh Anta Diop ñoo ko créé woon àddina di dox di dox di dox ba nu wóolu def ma seen jiit ma jiite organisation bu rëy rëy rëy ñu bare ñoo fa génne Mamadou Seck ancien président de l'Assemblée nationale euh, Abdourahim Agne ancien ministre et ancien président du groupe parlementaire du PS Sakhir Thiam mën naa la citer ay nit ñu nga xam ne ñoom ñëpp jaanoon foofu ñoom Mamadou ñoom Mamadou Diouf gi nekk léegi Colombienne Université Souleymane Bachir Diagne ñoom euh, Ousmane Sané ñoom ñëpp nekkoon naa seen président ma teel jàng politique ñu si roofu moo tax ba dans ce côté wax naan Mansour si c'est pas un politicien improvisé jógewul Jedda ñëw rentré au Sénégal ni sama baay am na ay mbooloo naa duggu si politique déedéet nee na ñun biñ biñ ko daan fekki à Paris muy diriger mouvement bi si la def toutes les organisations organisation française de 1971 à 1981 durant l'union de la gauche avec les Mitterrand ñun ñoo porté Mitterrand au niveau du pouvoir maa ngi woon foofu bi ma ñëwee fii nag agent de développement la xam naa ni problème yi ñuy posé au niveau du développement c'est des problèmes politiques c'est pas des problème économique c'est des problèmes politiques il faut que ñi yore nguur gi am la volonté politique de le faire mais ma seetlu ni depuis l'indépendance dara changé woon alors que bi ñu amee sunu indépendance dañu yaakaaroon ni euh, dund gi dana gën neex dana gën baax parce que ñu ni neen la mais ma seetlu ni changé wul dara tey même la gën yees xam nga dafa benn wax bu wolof di wax jateñ loo fóot fóot mu xeeñ beq yi xam nga luy jateñ mooy buum bi ñu yeewee tànku fas wi xam nga fas wi su dee tuur ndox day tis laal si buum ji wolof nag situation bu nga xam ne bi du changé moom def jateñ loo fóot fóot mu xeeñ beq mbeq yi mooy euh, bon loolu mooy Sénégal aujourd'hui def na lu nekk première alternance ñëpp am yaakaar deuxième alternance ñëpp am yaakaar. et deuxième alternance bokkoon nga ci. deuxième alternance bokkoon naa si bi ma demee eh, parce que yaakaar bi man ñi nga xam ni ñoo fal Macky Sall si laa bokk utiliser sama capital symbolique benn sëriñ ñeme woo ko woon def mu toog nii ma toog nii dans su ko nekk si kanam pendant trois semaines de campagne ñu def àdduna bi yëpp fu ne ma taxaw fa bi ñu attaqué Macky Sall ñoom béccee di wax lu nekk di ko bi mu waxee ni les marabouts sont des citoyens comme les autres Aminata Mbengue daf may fekk ngànn sall si benn takkusaan bu nekk foofu mu ne ma ñi ngi fatigué Macky Sall yi yow rek yaa mën toog weddi ko mais il faut nga weddi ko ma ne ko bàyyil ba ma dem Thiès bi ma demee Thiès Idrissa Seck moo nu recevoir moo wax ni kii wax a yéen mooy sëñ Mansour Sy Djamil waaw président du mouvement citoyen de la Fondation nationale qui est un citoyen comme les autres bi ma waxee wax jooju si lan donc maam Macky ñoo ànd ma ànd ak moom waaye wolof day wax ni loo am lu ne na nga fexe ba xam ni la ko may lan la soo ko xamul rek sa ngor des na bi ma demee ba gis ni li nu diggu woon ak fi mu jëmalee dëkk bi d'accordum si ma fàttaliku benn waxu sama Pape Cheikh sëñ Cheikh dafa ni ma dugg nga si lu jafe-jafe lu metti mooy politique bi mu laata génne àdduna yebal ay doomam ñu wax ma loolu man leen lu tax mu metti neen dafa metti ndax waraate bi dafa bare te fi nga ko foogewul lay ame waaw te gii la gën jege ñoo la koy def fi nga ko foogewul lay ame ñi la gën jege ñoo la koy def waaye bul def lu ñuy duute baaraam sa maam si Hajj Malik munuma def lu ñuy duute baaraam sa maam si Hajj Malik nit mu wax ni cinq ans lay def ñu dem ba si biir mu ni sept ans lay def te bi mu koy wax man maa moo ma àndoon d'accorduma si waaye wax naa ko benn wax Macky Sall ma ne ko yaay woonu sunu ndaa yaa yaa yonu sunu ndaa yaa ko yonu ndaali waaw waaw ndaali yaa ko yonu te ku yonu sunu sa ndaa doo bëgg mu fàkkastalu ma wax ka ni que li ñuy naan da ngay sànni xeer sànni xeer man yaa yoonu sunu ndaa ma gis ni xeer bee soo si jaaree daa te soo ndaar yi dana toj ñu ñàkk sunu ndox man maa lay juutu si xeer bi dindil la ko bala ngay ak si foofu loolu mooy critique yi may def moom nag mu jàpp ne daal xëj na Euh, coalition bi li ñuy am yëpp Serigne Mansour si Djamil xanaa dafa xeeb liñ koy jox ak yooyu. non nu ma dara c'est-à-dire que lan lan ma jox d'abord. muy tooñaate nan ay compal di. wax non non non non non xeeb ma leen ma jox mosuñu ma jox dara parce que Macky mhm. avant mu créer le gouvernement. Mhm. bi nga xamee ni gagné na. mu wax ma ñëwal fekk ma Mermoz bu ma fekkee Mermoz dafa ni ma ban poste de ministre nga bëgg. man que ñaari post ñoo ma le poste de premier ministre et le poste de ministre des affaires étrangères mais man en toute franchise monsieur le président ci jàpp ni ñaari post yooyu ku bokk APR moo ko war jël mu ni ma pourquoi mu ni ma qu'est-ce pour le poste de premier man que mënu moo ko jël parce que man dama jàpp ni ku bokk si yow moo ko war jël su doon man noonu laay def c'est des post stratégiques mu ma premier ministre koo gis ma ni que un technique pas un politique mu ni ma ah Tanor ak Niass duñ ko nangu. gis nga teg duñ ko nangu gis nga technique boobu ma ko waxoon moo tax mu jël ñu ab Abdou Mbaye mais man kan laa ko proposé woon euh, Jacques jouf Jacques jouf technique agriculture li nu gën soxla ñun mu nekk pendant 17 ans yoree ko à la FAO mu jël retraite am ma ni que jël ko mu diriger ka parce que mooy conseiller le roi du Maroc mooy conseiller Afrique du Sud mooy conseiller euh, Arabie Saoudite en matière d' agriculture ma ni que jël ko. waaye bi ñu demee. ma ni ko man intéressé wu ma dul lool mais am naa ay nit ñu nekk sama gannaaw soo leen jëlee ñoom daanu nangu faale wu ma jox proposé wu ma dara bi ñu dem élection législative yi. mu woow ma mu ñëw mu ne man ñu ñu àndee woon si présidentielle laa bëgg ñu ànd président législative ma ni ko amu benn problème ça dépend li may proposé mu ne ma benn poste député ma ne ko monsieur le président entre toute franchise dama yaakaar ni ëpp naa lool te danaa la wan ëpp naa lool kon li ñuy def rek demal taxani ma dem taxani lëkkum diinukum wala diin suñu pare élection yi lu ma taxani yaa moom ma am quatre postes de député si benn bi donc li ma doon proposé quatre fois la am donc je lui dois rien du tout nekkuma si gouvernement bi nekkuma si benn poste d' ambassadeur joxuñu dara si te li ñu am à l' assemblée nationale ñun ñoo ko may suñu bopp ñoo ko may suñu bopp au niveau am suñu liste bopp dem bi ñuy dem aux élections locales en 2014 la même chose ñoo demal suñu bopp bi ñu demee si référendum bi fokk non moom on était toujours dans benn Bokk Yaakaar. mais wii la wax man ma wax non. d'accord mais benn point rek yéen dafa mel ni moom ngeen féewale mooy le fait que mu def wax waxet cinq ans sept ans rek nga ba ko loolu loolu rek mooy raison. non non non baaxul ba non baaxuma ka parce que nekk naa ci référendum moo taxoon ñu def noonu nekk naa ak ñoom. xam nga fan la ñu fi nekk naa dans Benno Bokk Yaakaar. mais instant bi nekkatoo Yaakaar. lan moo nu moo nu bi ñu ñëwee mu woowaat ma. yii passé maa ngi woon Benno Bokk Yaakaar mu woowaat ma ni ma sëñ Mansour dama bëgg ñu ànd si législative yi ma ne ko ça dépend li nga may proposé mu ni ma deux postes de député ma ne ko xanaa monsieur président doo xalaat baal ma wax ji. mënuma ànd man kenn am quatre postes de député di ànd ak yow di am deux postes de député su ma ñàkkoon fayda ba nangu ko am na ay nit ñu nekk sama gannaaw jamais ñu nangu ko mu ne ma naa la si bokk yokkal nga nekk la tête de liste de Dakar ma ne ko tête de liste de Dakar ma ne ko non ma nekk euh, l'agneau di sacrifice su leen wóoroon ni mën ngeen gagné Dakar kon du ngeen ma teg tête de liste su leen waroon ni Benno Bokk Yaakaar mën na gagné Dakar du ngeen ma def tête de liste kon APR mooy nekk tête de liste. ñoom ñoo gagné ah nan la ñu gagné. gagné bu nga xam ne bi ils ont mis benn dispositif bu nga xam ne bi pour sàcc élection yi damay jaar si digg bi wax ko man j'étais à Dakar avec mes députés on avait gagné Dakar tu vois mais ñu jékki-jékki rek à trois heures du matin alors que man maa ngi yore résultat yi on a gagné Dakar ñu jékki-jékki rek annoncé ni ñoom ñoo gagné Dakar. mënuñu gagné dakaar ba ilaa yow mi diin moo tax lii xew au niveau de Khalifa Sall xam bi nu xam mënuñu gagné Dakar moo tax ñu def ko may nga ma rek ma wax la. ni le PS tànk que ñoo téye woon dakaar téye noonu réew mi pendant quarante ans de parti socialiste bi nga xamee ni perte nañu réew mi avec Pape Diop perte nañu Dakar ne avec Pape Diop si lañu daanu Ablaye Wade tant qu'il tenait Dakar avec Pape Diop. yore nañu réew mi pendant douze ans mais bi ñu ñàkkee dakaar avec Khalifa Sall si la ñu daan ñu ngi nekk situation bu nga xam ne bii le président actuel musul téye Dakar musul dominer Dakar te xam ni Dakar lu am importance de ces élections présidentielles cinq pour cent de l' électorat bi la nekk mën nga sax bañ campagne à l' mais yorewoo ko yaa président la République am ah, nee moo ko yor ni moo gagné. ah nee na moom moo gagné. yorewul dara ñëpp xam na ni bon mag du nax boppam moom xam na xam na fi mu jaar ba am loolu dispositif frauduleux bi nekk en place instauré que en 2017 nar ko def en 2019 moo tax. moo tax mu rek en 2019. ah mais bien sûr que ils ont mis le dispositif en commencé par. Euh, le parrainage c'est une escroquerie intellectuelle et politique loolu la ñu def au niveau de moom la ñu bëggaat nag defaat. fii nga xam ni si lañu jëm. donc tax man perdu d'avance kay kon kay yéen waa ji gagné na leen. est dana ko def wala du ko def ça dépend du fekkee ni ñun ñi nekk si opposition bi mën na nañu créer rapport de force bu nga xam ne bi day dellu gannaaw te day dellu gannaaw parce que les chancelleries ñi ngi fii. France ñu ngi fi États-Unis ñu ngi fi la Grande-Bretagne l'Union européenne ñu ngi fi. est-ce que seen intérêt nekkul ci côté Macky Sall. non pas d'accord non seen intérêt xam nga fan la nekk. signé on a du pétrole beeg. on a du pétrole. xam nga fan la seen intérêt nekk. intérêt ñu exploiter pétrole bi si jàmm pétrole bi kenn mënu ko exploiter si ay. gis nga quand on prend le cas de la avec euh, Dos Santos combien d'années de guerre civile avec Savimbi si enclave u Cabinda. ñoom dañu bëggoon jël enclave Cabinda jox ko États-Unis jox ko Afrique du Sud Dos Santos le impera xaar si tànk tubéyam xeex xeex xeex xeex ba gañee ko sooy bu été obligé ñëw bokk si élection yi. loolu rapport de force la. rapport de force la est-ce que rapport de force boobu noonu am foofu nag mën na am fii nii Sénégal. dañ koy rapport de force gis nga yaay jaamee nekk na si pendant vingt cinq ans trois mois rapport de force bi changé mu jógee fi. kon biir mi à tout moment rapport mën na am. mën na wax naa ko que plusieurs fois euh, waa ji nekkoon Zimbabwe Mugabe. Mhm. nekk na ñaata 49 ans. la nekk la nekk au niveau du Zimbabwe rapport de force bi 10 jours mu changé complètement jóge fi gis nga Blaise Compaoré bi ñu koy élire 87 pour cent la gagne élection yi 6 mois après rapport de force bi changé 6 mois de. si ku gagné élection 87 pour cent rapport de force bi changé mu dem yoonam mën naa la citer ay exemple yu bare bare bare ñun li ñu wax def fexe ba dëkk bi nekk si jàmm dafa am wax bu am solo bu Pape Malick wax barki dem nii nag ak lu mënti xew bu violence am su fekkee ne violence ay am du jógee si ñun waaye daanu créer un rapport de force bu nga xam ne bii lépp lu nga xam ne Macky su ko defee fi mu jëmee réew mi amul ndox daan taxaw wax ko ñi qui qui parle de de de force ou bien de coup parle de violence de wala bokkul. non wax coup. non wala le rapport de force de force est à la loi. il n'y a pas de violence. c'est la loi qui garantit la force. et quand on dit euh, un rapport de force foo xam ne fii la majorité du peuple wan naka gannaaw xam nga tey li gën a am importance ci situation du Sénégal xam nga lan la. Mm-hmm. ñaari paramètre la paramètre bu jëkk bi mooy que ni dëkk bi won nañu Macky sàll gannaaw. mais Macky sàll dëkk bi won nañ ko ginnaaw la opposition bi di wax mais saa bu ñu demee élection rek mu gañ. mais ni muy gañee na si ngañin wi la gis nga nettali naa bërki dem ni bi ki di dem Tivaouane ñemewul woon dem Tivaouane daf ma woo ma fekk Mermoz mu ni ma damay dem Tivaouane tey man yow laa bëgg àndal ndax situation bi c'est carabiné. ma ànd man moom ak danse ko mu nekk si kanam danse ko Macky toog nii ma toog nii. 2012 la woon. 2012 ñu demee bay bëgg dugg Tivaouane fekk xam naa situation bi informé moo woo sëñ bay si xalif bii xam ni Macky la mës àndal. ma ni ko papa mu ni ma naa ma ni ko maa ngi indi Macky Tivaouane nan lay demee mu ni ma yóbbu ko si rawdu yi. mu ziyaare sama si Hajj Malick ziyaare sama Mansour ziyaare sama Abdou sama Habib nga yóbbu ko si raw rawdu sëñ Babacar mu julli ñaari raaka ziyaare sëñ Babacar nga koy dooraa yóbbu si xalif bi ñu def noonu mu yóbbu ko si xalif bi bi ñu ñëwee xalif bi ni ma déy ko ni ko am na ma ne ko maa kii ah góor gi dane am nga nga élection yi góor gi ni ma kaay mu ñëw ni ko am den neex waaye amin moo daax ndax na am na amin bu nga xam ni bii soo ko amee soo demee ba wéet ak sa bopp daa jëppi sa bopp parce que xam nga ni nga ko amee baaxul moo wax ko Macky Sall dafa mel ni góor gi dafa gisoon 2017 xam ni dana am amin bu ñaaw amin bu ñaaw noonu nag lañu amee te amin bu ñaan boobu moom la ñuy préparé waat en 2019 mais enjeux yi dafa énorme il y a les enjeux du pétrole il y a les enjeux du gaz il y les enjeux euh, euh, du développement parce que actuellement première considération bi c'est que Macky a abîmé notre réputation internationale. Ah bon. d' abord ñi nga xam ne ñoo ko wër waaw dégg nga ah, ñi nga xam ne ñoo ko wër. Mm-hmm. jubóowu na man waxuma ne rek peuple bi war naka gannaaw mais tey la xew Touba ñëpp xam nañ ko yéen a ngi suivre les réseaux sociaux ah, attaques yi gën yi gën dëgër euh, foofu la yooyu dans un pays bu nga xam ne bi ku Touba ma si war gannaaw nga perdre élection yi. Macky fexe na xaw ma yan erreur la def Macky gis nga opposition du ko daaneel ay erreur boppam moo koy daaneel. askan wi ko ba. ah askan wi ñoo ko. ak kan yi lu tax ñu bàkk à cause erreur yi moom te yi muy def dafa am lu nga xam ne gis nga ñu li ñu xam ñu jàngal ñu ko si daara kilifa day jéggale day yërëm mais dans le cas de Khalifa Sall sëñ ñaan na njëkk ñu bañ. waaw sëñ Sidi Mokhtar ñaan nan njekk ñu bañ waaw ah, sëñ sëñ Abdou ñaan nan njekk ñu mu laata wuy ji boromam ñu jàng le l'archevêque de Dakar le le le le cardinal de Dakar ñaan ka njekk mu bañ si kilifa ñun ñu ñu jàngal mooy kilifa day tabe day yërmande ku ko tooñ day yërëm ku ko tooñ te itam day baale koo xam ne kii doo baale ñëpp ñaan la nga bañ gis nga loolu dana bokk si li xam ne mooy sànq. Euh, Macky Sall beneen bi mooy lan mooy euh, le dispositif électoral le processus électoral euh, carte yi am nañu carte parrainage amul parrainage et cetera ba léegi dans le directoire de Besugnac am na de très grands militants yoo xam ne amuñu seen carte ba tey waaw dama dem bërki dem nu mu tuddati benn dëkk du de Kébémer ñëw ni ma ñii fi nekk fii yëpp foo deewee ñu deewee fa mais quatre vingt pour cent yi toog fii yaa ngi wax parrainage kenn amul si kàttam loolu mooy problème bi. d'accord nit ñi am seen carte. parrainage bi escroquerie la su fekkee ni loolu la yaakaar pour gagner élection yi suñu borom mi ngi si kaw duñu seetaan. te suñu borom bëggul ko nga xam ni kii jubuloo. waaw te loolu euh, euh, afdalu jihaad kalimatu xaq inda sultaan jaay jihaad bi gën am solo mooy nga taxaw fekk njiit ju nga xam ne bii mi ngi jàng nga ni ko eh mu gees la nga ni ko da ngay jeng dangereux na parce que tu peux te retrouver en prison man nag foofu laa fayte sam papa bi mu laata génn àdduna def fi bàyyi benn wasiya avant même mu génn àdduna 58 la ko génne dafa ne dafa bind si wasiya bi moom mi mokkal na ko bul wax lu bon di ko génne si gémmiñ lu mu métti métti sa pan campagne électorale bi duma génne lu bon sama génn beneen bi mu ni ma fépp foo xam ne fii ña ngi fay indi ndëngte wala ñàkk mandute na nga taxaw ni ko alxuraan waxee nga xeex xeex xeex ba nga xam ne fii jógee na fa man ñaari attitude yooyu rek laa am. si nekk ma si laa nekk te du ma si jógee incha allah. incha allah ñu dem publicité dellu si waat Kleenex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette eau de gel shampoing Kleenex mbégte doom ak yaay kese disponible chez Casino ginnaaw publicité ba nag euh, mbokk yi ñu dellu si waat ak euh, Serigne Mansour Sy Djamil. Mhm. gis nañ nag euh, sànq sax am na lenn loo ci junj ay kàddu yoo xam ne tamit mu ngi jógee ci porte parole bi Pape Malick Sy. Mhm. Serigne Pape Malick wax ne daal tu as woon daal danoo war a jàppale président Macky Sall. ndaxte daal def na fa mbir xel yëpp nag dafa dem ci Serigne Mansour Sy Djamil ak waa PUR waa Kër Seydi El Hadji Malick lañu radiyallahu taala te daal ñu ngi yor ñoo it seen i parti ci opposition bi. waaw waaw loolu nag xaw na jaaxal ñu. xam nga ñun suñu papa daf nu yar daf nu waajal. daf nu dugal ecole xam ni ëllëg daan fi nekk situation bu mettee métti sama papa daf nuy dajale ni ñu gaañ kan mooy si seen gaa dégg nga wax bi. Mm-hmm. gaañi kan moo si seen gaa ñii wax ni Abdou Diouf ñii di PDS ñii di Dansoko ñii di Ablaye Bathily ñii di Landing Savané ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay wër ko lan la ñuy jàngal pédagogie bi mooy lan. mooy mën ngeen wuute si kii seen ga mën ngeen wuute si ki nga xam ne kii moom ngeen di jàppale si politique bi mais su añ bi jotee suñ ko tegee yéen ñëpp a koy bokk tu vois. waaye kàddu xalifa dafa xaw a kii de. attends attends attends attends ñu ñëw. man ni ko ñu ni ko papa yow kan mooy sa gaa sëñ Babacar Si te wax boobu dafa am lu bare lu mu ëmb kon tey man su doon sama sago ñoom am noonu droit jàppale Ablaye Wade ah kii du ka Macky Sall comme man ni ma amee droit bañ ko jàppale loolu mooy gaañu kuy seen gaa ñoom Macky mooy seen gaa man suuf ci sama bopp man maay sama gaawu bopp ndax ndax je suis candidat aux élections présidentielles waaw loo bëgg-bëgg nit xanaa euh, gën ko bëgg sa bopp donc ñoom waxuma leen ni affaire mbokk ak yooyu de da ngay war ànd ak man déedéet gis nga fii wax naa ko barki démb ñi ñu dégguñu soo dee wax mën leen Tivaouane c'est pas la hiérarchie Touba hiérarchie la et même mais Touba c'est Tivaouane polyarchie la centre de décision yi dafa bare gannaaw suñu Babacar ba tey amul benn xalif bu nga xam ne bii majoritaire la day am benn wax bu jib si wàllu politique sam Pape am na position boppam monopole décision amu fa ah? monopole. waaw amul fa démocratie c'est le summum de la démocratie gis nga ni en 93. mais xalif bi tamit. bu bu yorul monopole décision wala ndigal wala kàddu. mais mosu fi am. Tiwaawan amu fa. mosu fa am gannaaw depuis sëñ Babacar amu par contre Touba am na fa. Touba am na fa am na ko nga xam ne mais xaw ma ndax ñu ngi koy mettre en œuvre mais yéen ñëpp lu ngeen nekk nekk xale. seet ngeen ni fii au niveau du Sénégal si Tiwaawan ku nekk ak position sama Pape am na position politique am sëñ Abdou am na position politique am yenn saa ñu ànd yenn saay yi kii jaar nii kii jaar nii en 93 loolu moo am sama Pape ni jàppale leen Abdoulaye sama Pape Abdou ni jàppale leen Abdou Diouf ndax Abdou Diouf nga ñu désigné woon te Abdou Diouf mi ngi si ba tey moom la ñu jàpp mais kooku histoire la. xam nga fii attends fii dara beesu fi. mais contexte tey bii contexte tey bii démb bi si jamono jamonoy sëñ Babacar ñi ànd ak Lamine Gueye seen kurus wëñ ju xonq lan koy nase ñi ànd ak Senghor seen kurus wëñ bu verte lan koy nase xadara bi àngoon na foofu kon dara beesu fi kon tey mënoo ñëw rek ni xalifa bi man sama xarit la sama papa la sama papa ka yar papaam moo yar sama papa bi ma juddoo may taw sëñ Moustapha tuddewul ma El Hadj Malick tuddewul ma sëñ Babacar sama maasu lan ma tuddee sëñ Babacar moo ko wax ni que tuddee que sa sa sa sa baay bi nga xam ne moo la yar ñun dañoo am relation ak sama papa sëñ Mbaye su ma jagee sama mbiru àdduna moom laay dem seeti mu wax ma ko. pour gàgganti waaw ah, pour gàgganti ma donc am na relation dafa bëgg sëñ Moustapha. li muy wax li muy wax sëñ Moustapha amul kenn ku koy wax. àdduna du yàgg yàgg danaa ko wax waa Sénégal barki démb la presse avait dit que wooy sëñ Mansour euh, papaam daf ko wax ko ni ko jàppaleel euh, euh, Macky Sall mu ni que je suis dans l'opposition musuma toog ak sëñ Mbaye. sam pap mu wax ak man politique. xalif eh, musuma toog. Euh, am na orma si man orma bu nga xam ne bii xam naa fu mu féete moom xam naa fi mu féete. suñu toogee daan wax. mais yaa ngi moom bokkoo leen position ci wàllum politique de. oui loolu laay wax loolu laay wax sa papa yëpp. ni mu ñëpp xam nañ ne Macky Sall la. moom ñëpp daal avant même. avant avant même que Macky Sall ne soit président de la République. mais moom Macky la mës nekk moom nëbbu ko Macky la mës nekk mais moom tam xam na ni man su ma bëggee exprimer sama position dama koy exprimer porte parole bi fi nekkoon euh, c'est c'est Serigne Abdou moom il avait ses positions politiques. mais man bi muy jàppale Ablaye Wade dama contre Ablaye waat xeex ko te ñëpp xam ko damay def sama meeting wax ni d'accord ma ak Ablaye Wade man du ma porte parole waaye Ahmed Aïdara j'ai une parole qui loolu mooy réalité bi ñoom sama ay waajur lañu àdduna du yàgg ba ma taxaw si télévision di leen ŋàññi li ma wax li ma wax si ñoom c'est respect considération mais est-ce que surtout que surtout ay nit yu yiw lañu ay nit yu baax lañu ay nit yu yu am xel lañu mais nag yenn saa yi il faut que ma xam nga wolof dafa wax ni soo nekkee ay nit ñu nga xam ni si màtt la la ñu jëm na nga siiñ ba nu xam ni am nga bëñ suñ la màttee te fayoo ñu xam ni dafa am loo bàyyi xel waaw soo gisee yenn saa suñu waxee ma wane ni man tam man man candidat laa du ma du ma rek doom bu wax ne candidat laa donc ñoom candidat bu nu faral du mu leen wax waru leen ko woon faral man maay seen mbokk man ngeen déedéet liberté totale nan dem faral ki nu bëgg mais man nan ma bàyyi rek kon ñoom kafe laay naan ñoom dute la ñuy naan ñu ngi naan dute man may naan café dute tere ñu nekk sama ay waajur est-ce que loolu euh, gàmmu gi bu ñëwee tam du mën a jur malaise parce que ñëpp xam nañ la yow ci dispositif bi fi ngay toog. mais bien sûr depuis yàgg na. non mais kooku lii ñu wax nii si Jamil moom. non non bu xalif bi daan ñëw. maa koy yooyu ah, kooku c'est un protocolaire bu nga xam ne bii sëñ Mansour si borom daara ji moo ma ko wax bi nga xam ni sama euh, ma Abdou génn na àdduna daf ma woo ma ñëw mu won ma benn photo photo boobu ñëpp xam nañ ko photo bi nga xam ne bi sëñ Cheikh dafa nekk nii sama Abdou nekk si digg bi sëñ Mansour téye si loxoom mun ma gis nga lii ma doon defal sama àdduna mun ma yaay taawu xale yi tey yaa ma koy defal. suñ dee dem si des stations officielles bi yaa may yóbbu suñ dee dem si jàkk ji yaa may yóbbu kooku c'est un rôle protocolaire bu ma xam ne bii samay waajur ñoo ma ko liggéeyal ma koy assumer am na ñu koy xëccoo man at mu nekk nga gis gaa ñi xëcc fii mais man damay toog di leen xool ñooñu. suñ demee. nekk candidat toog foofu. mais ñoom li ñu wax wax nga ko ne leen géejawaay xam nga bi sëñ Pape Malick Sy di wax mënoon nga jóg yow tamit wax mbooloo mi ne. mais kooku du ko def mukk si àdduna. candidat la. du ko def mukk si doo ko def. waaye. gàmmu ji ñu jëm mais dara beesu fi Pape Malick li mu wax barki démb mais gàmmu Tiwaawan bii passé sëñ Abdou dafa nekk si biir suuf deux mois ñu ñëw gàmmu Tiwaawan ñoom ñu wax carrément fi nu fayti jamais deux cent trois xaw ma j'avais un cent deux kooku yaa ngi koy fàttaliku kooku daaw la woon Pape Malick Pape ni en politique y a pas de neutralité ñoom loolu la ñu wax. mais boobu déclaré ko sa candidature. waaw mais voilà. mais bu ren bii. boobu temps boobu sama candidature. bi yoon nag man déclaré naa sama candidature. mais comme man je un nam démocrate libre et cetera dama créer son parti politique am sama récépissé dem dans des élections gagné dem dans des élections ñu gagné ma mais comme man maa nekk si géewu politique bi du tey laa ko commencé. commencé naa ko depuis bi may jàng au niveau de la France. xam nan lay def ci en matière de politique. kon fii ñu jëm si gàmm gi. Mhm. man de su fekkee ay am na si gàmm gi du jóge si man mën naa la ko garantir maintenant ndax liñ suñ mu safaayare. sama baay daf daan wax doomu mag ñi doomu mag ñi doomu mag ñi doomu ñi nga xam ni ñoo àndoon nag si Hajj Malik ànd ak suñu Babacar di liggéey te doomu mag ñooñu yàlla daf mag ñooñu yàlla daf leen tagg si alxuraan lawlaa kaana min alquruuni min qablikum ulul baqiya yanhawna an ilfasaadi fi l ard illa qalilan mimman anjaynaa minhu wattabaa alladina zalamu yàlla nee na su dul woon mag ñi jiitu taxaw fu safaan bëgg amee ñu taxaw ba safaan jóge fa su dul woon lool ko ñun yiw bi nu am duñ ko am te Pape Malick ak sëñ may xalifa bi ñoom dañu yaroo màgge si keppaaru mag ñi fekkee lu baree bare kii sëñ Cheikh yar ko kii sa sama sa maam yar ak sa maam Mansour ñu màggee si keppaar boobu fekkee lu bare xam lu baree baree bare mën naa wax ni tey chance u tariqa bi la ndax ñooy yàlla nee na maa bind mag ñi ñu dindi fii safaan su fekkoon ñu woon ni ñoom dindi wuñu safaan boobu tey yiw bii ngeen am du leen ko am mim man an jey naa minhu man nag maa leen seppi si lu baree bare ba nu mën taxawu taxawaay bii ulul baqiya ulul xikma ulul ilm ulul aql ulul tamyiz fa jaalnaahu samian basiran inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kufran mag ñooñu nag yàlla nee na moo leen choisiral boppam tax te moo créé lu mat sept milliards cinq cent millions d'habitants un milliard cinq cent millions kese kese kese ñoom ñoo ko ñoo ko topp kon mag ñi su fekkee ni bokk nañ si un milliard cinq cent millions noonu baax na nu naam waaye yàlla moo baax ñii nag foofu la nu ñu ñoo ñu tàggat leen préparer leen yàlla def ñoom ñaar ñoo nekk si euh, bopp tariqa bi ñan yàlla mu guddal seen fan. waaw ñu am nag lu nga xam ne nii sëñ Babacar moo ko way si Hajj Malick ne da dafa yéeg def lu nekk pour am sëriñ bu nga xam ne bii moo koy teg si loxo Cheikh. Cheikh tekk si loxo yonent bi mu def lu ne nee na jultul mawaamiya waaw wa xuttul maala fii talabi cheykhan yurini simaaral naa fu nekk am sëriñ bu mel ne seen Malik bu nga xam ne bii may woon meññeentu jokk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kooku sëriñ boobu li nga xam ne mooy caractéristique am mooy sax si dëgg di wax dëgg ñun ñu jàpp ni képp kuy sëtu si Hadj Malick loolu war nga ko doon sama te man loolu laa jéem waxuma ni doon naa ko mais ñi ma àndal loolu la ñuy essayé niru jikko jooju parce que mission fii si kaw suuf euh, ñu mën ko assumer plen xam na sëñ Moustapha Senghor dafa yabale ñëw fekk mu toog mu génne benn chèque ni ko sëñ bi le trésor français moo la jox lii chèque en blanc la. chiffre boo bind trésor français fay ka c'était durant la colonisation foofu am amagul bindal lu la neex su la neex nga bind 99 99 99 ba du amati place trésor français fay sëñ Moustapha yore affaire bi wëndeel ko wëndeel ko ni ko jërëjëf teraanga la sëñ Moustapha sëñ Moustapha di ko jërëjëf te nga doon jox ko Senghor ni ko jërëjëf nanga ma remercier le trésor français bàyyil ma doyloo sama yàlwaanu taalibe delloo ko ko delloo ko ko ni ko bàyyil ma doyloo sama yalwaanu taalibe ko ñëpp xam nañ ko mais ñun sam papa waxuñu ñu doyloo suñu yalwaanu taalibe daf nu yóbbu école ñu jàngi ñun ñëpp doomam suñu neexee fii mën nañ fa génne un gouvernement du Sénégal ñëpp am seen diplôme ñëpp am seen métier ñoom Habib ak ñi expert comptable ñoom seen Cheikh ñoom ñëpp même ak cinéaste sax am nañ ko ak sëñ Abdoul Aziz donc waxul ñu doyloo suñu waxtaanu taalibe suñu yalwaanu taalibe def ni ñaq leen waaw ni gor yëpp di ñaqe dunde ñun loolu lañu dem musuma liggéeyal Sénégal c'est-à-dire salaire Sénégal yàlla daf ma defal sutura dama pare jàng rek jubal directement à di nekk fa 27 ans dans institution bi gën rëy dans le monde islam 27 ans laa fa toog donc musuma liggéeyal xam nga premier salaire Sénégal kañ la bi ma nekkee député c'est le premier salaire que j'ai eu du Sénégal donc maa ngi woon di yiw sama maa ngi woon sama sama yiw ak sama teraanga ba tey euh, sëriñ bi euh, loolu mu côté gouvernement mais côté conseil municipal aussi euh, Ndakaaru ak affaire xalifa sàll bii nii nan nga ko gisee ñu xëy wàccee ko ñu ne léegi nañu ko remplacer te taxawu Dakar est que loolu tam du rafet. may lu ñaaw la jàpp bi ñu ko jàpp wax naa leen lu tax affaire yu caisse d'avance. lu dogalu yàlla. du ndogalu yàlla c'est quelque lu wàcc ci doomu aadama ndogalu yàlla la mais kii man mënuma taxaw di wax ndogalu yàlla parce que li may wax wax naa ko affaire u Khalifa Sall yéen ñëpp dégg ngeen ma waaw fu nekk taxaw naa fa nii lii ñu def Khalifa Sall c'est un procès politique n'a rien à voir avec la justice dans ce juridisme vétile et tout ça rien bëgg nañ ko éliminer parce que Khalifa Sall gêné na Macky Sall ñu sosal ko créel muy dem di dem ba nu tëj ko mais un an avant bi ñu nekkee au niveau de Benno Bokk Yaakaar je siégeais parmi la conférence des présidents de Benno Bokk Yaakaar man rek maa am possibilité siège naa conférence des présidents Benno Bokk Yaakaar siège naa conférence des présidents Taxawu Sénégal maa ngi ko Taxawu Sénégal yaayu donc am naa expérience de ce qu'est le landerneau politique sénégalais waaye bi mu ñëwee dagale nu ni kaay leen dimbali nu dimbali ma man Macky Sall si affaire Khalifa Sall bi ñu bari jël parole di kii ak yooyu ma jël parole ni que monsieur président man de député la à l' assemblée nationale man maay defar yi deuxièmement je suis un citoyen dafa am lu ma gëm mooy la présomption d'innocence tant que kenn condamné wu la man jàpp naa ni Khalifa Sall il est libre donc lii nga ñuy ñaan ñu ànd see man ànduma seeg yow ndax dafa am lu graw a graaw d'abord la partialité lii nga kay accuser am na ñu bare ñu fi jaaroon ñëw wax ni jaar nañ fa noonu la noonu doxee que ça soit Pape Diop que ça soit Mamadou Diop ñoom Lamine Diack ak ñëpp jaar fi noonu la noonu doxee y a la partialité y a la temporalité à quelques mois des élections législatives nga jàpp ko mais y a disproportionnalité Khalifa Sall 513 milliards la géré en 10 ans nga koy jàpp si un milliard huit cent millions c'est quoi ça donc man ni ko man d'accorduma si loolu loolu moo continuer man jete avec ce combat fu nu taxawee dem tribunal wax wax wax ma def sama déclaration politique la pour yow politique la pour man politique la bon li mu li mu ma waxoon bés boobu mhm. ni ma xalifa danaa ko révoquer ca jamonoom jamonoom ah bon mu ma xalifa danaa ko révoquer danaa transformer le conseil municipal en délégation spéciale xëy na bi ñu demee si biir la ñu gis ni juridiquement c'était pas possible nu bàyyi ko mais man li nga xam ni moom laa jàpp li may yéene c'est que le groupe bi nga xam ni ñoo faloon Khalifa sal groupe boobu ça soit maintenu kenn ko nga xam ni moo hébergé euh, Mardini et cetera ñu tabb ko man foofu la sama problème ko d'accord xam nañ ne sax ànd woon ak Ablaye Wade mais dossier wu Karim Wade bi génnee bitim réew toog bitim réew nit ñi naan moo fa bàyyi boppam affaire gouvernement bi mais ñoom tam nañu jàpp ne kii dañ koo exile nan nga gisee loolu benn doomu sénégalais bu nekk bitim réew gis nga dafa am aspect yu bare xam nga politiciens yi duñu bàyyi xel li sénégalais di xalaat sénégalais mënul xalaat mukk am Abdoulaye Wade di jàpp Macky teral ko ni mu ko terale tey su nekkee président de la république grâce à Abdoulaye Wade gannaaw yàlla cër bu ne mu jox ko ko nekkoon directeur de Petersen bi ma jëkkee rencontré Macky Sall c' était grâce à ma femme c' était à à, à au Qatar à Doha ñu ñëw def le sommet islamique mu jógee Jeddah dans la délégation de la Banque islamique de développement ñoom ñu ñëw fi dans bu groupe y avait les Serigne les na Yabouna les Babacar Touré euh, ñoom ñëpp ñu bëgg jëndi euh, de l'or ci marché bi xamuñu nu ñuy waxee ak tubaab bi sama jabar doon euh, lekk ñoom yóbbu leen foofu laa xamee Macky Sall Macky Sall en faisait partie donc Petrosen ministre de de l'énergie ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale foofu mu jaar yépp kan moo tax Abdoulaye Wade teraanga boobu ku la koy yekkal xam nga la mentalité l'imaginaire collectif Sénégal du dugg moo tooñ wala tooñul déedéet ku la defal teraanga bi amel nga ko njukkal njukkal googu na nga xam ni Macky Sall jox ko Abdoulaye Wade ñii ñi foofu rek lañu taxaw te ñaaw na ñaawaay boo nga xam ne bii ku nga xam ne lu nekk loo doon gannaaw yàlla moom moo tax nga doon ko nga jëpp nga jël doomam tëj si kaso bi kooku ñaaw na ñaaw bu nga xam ne bii man foofu rek laay jugé. su doon man des comptes dinañ ne la loi c'est la loi. loi euh, ay diw mooy doomu diw wala. non la loi diw mooy doonu diw mais y a xam nga y a la loi. mais y morale. y a l'éthique gis nga caisse d'avance yàlla y a la morale gis nga caisse d'avance bi soo jisee ñu instauré ko da xam ni kilifa dana nekk situation bu xam ni mënul jël si budget bi di régler des problèmes. il faut absolument que mu am comme li am présidence li am assemblée nationale li am chez Tanor possibilité bu nga xam bii mën na si utiliser pour régler des problèmes bu jëmul si moom mais jëm si doomu aadama yi gis nga loolu il faut que ñu accepter ko man je suis jamais intervenu sur le problème de Karim mais man li ma xam du point de vue éthique du point de vue moral c'est que ku ma yàkkal teraanga bi Abdoulaye Wade yàkkal Macky Sall du ma ko wax du ma jàpp doomam teg si ko ci kaso am na benn jëmm joo xam ne nag euh, jóge na fii ci fan yi ba ñu denc ko ci alxames gi di Bruno Diatta yaakaar naa ni boo ko côtoyéwul tamit euh, Sénégal moom ñëpp Bruno sama xarit la ah. xam nga Bruno dafa nekk euh, j'espère que bind na livre ah bon parce que j'espère waaw parce que li mu traversé ak li mu xam ak li nga xam ni fekkee ne ko Senghor ba tey doon nekk si ay waajuram kooku figure bu rëy rëy tey moo fi génn du point de vue de la diplomatie et du point de vue du protocole figure bu rëy Bruno sama xarit la xam nga dama amoon problème su ma demee si sommet de l'UA de l'Union africaine sommet OCI avec le président Diouf ou bien le président Wade ñu war rentré Sénégal man jëloon naa cinq jours de vacances moom dama ko daan wax Bruno est-ce que am nga place ci kii mun ma sunu amul place man naa la wutal place lu mu xat-xat dinaa la ci dugal si mu ñëwee mu confirmer ne ma ñoo ñu dem nag Ablaye Abdou Diouf bien ànd ak euh, Ablaye Wade mu du même avec Macky Sall daf may wutal place mu daal di ñëw voyager euh, et cetera muy nit ku baax nit ku compétent mais nit lu jafe si Sénégal yi nit ku discret man dafa am benn mbir bu ma jaaxal si catholique yi gis nga soo demee à l'Assemblée nationale Joséphine ma nga mi ngi nekk secrétaire général de l'Assemblée nationale depuis le temps de Senghor inamovible ku ñëw da bëgg mu toog parce que c'est la mémoire institutionnelle Bruno aussi à cause de sa compétence xëy na bi mu jëlee ci ay yaram ak yooyu mu yore mu tenir le haut du pavé pendant très longtemps ba tey yàlla moom ko